jafe-jafe ci wàllu assainissement lu yàgg la ca Grand Yoff ndax nag diiru fanweeri at a ngi nii ñay yeewoo ci cité Scat Urbam di dund ak yi la ndox lu ni mel ëlëm leen loolu. sonn nañu dee nañu dee nañu dee nañu dee def ndaxte depuis trente ans dëkk fii si quartier bi mu nekk situation bu méttee méttee métti. donc vraiment sonn nañu deeñu te ndox mu salte la ndox mu xeeñ boo xam ne bi day indi ay feebar suñu doom yi sonn nañu ñun sonn nañu suñu borom kër yi sonn nañu ñëpp sonn nañu ba pare dafa nekk ci ay booru ay jàkka-jàkka jaa ngi nii beneen quartier boo xam ne moom itam loolee la ñu fa nemmeeku mooy Arafat fii askan wi ñu ngi yuuxu wëllu kii moom bi mu dëkkee ci gox bi ak léegi def na juróom-ñaari weer ci diir boobee yépp ndox mi mu ngi des ci yoon yi da ngay xool ndox bi ku ko dëgg tey boo paree sa biir kër nga jëmaat ñi fi nekk ñëpp kër yi fi nekk boo xoolee tey seen dund li ci gën a li ci gën a ëpp solo mooy eau de javel ak omo la ñuy jënd tout le temps kër goo dugg di nga fa gis ndax lan impact bi ndox bi def fi nga xamante xale yi ñoo ciy jaar tout le temps ku fi dem bu duggee bu ñëwee dina ut lu ko raxas yooyu kon xam coono bi ñuy dund métti na presque ñu ngi ñu ñu dugg ci huitième mois affaire bi nekk fii. ndox mu ñuul bi te xasaw loolu yàq na njënd meek njaay mi ñu amal ci koñ bi bokk na ci soxna si nga xam ne. te bërëb bi muy jaayee mu ngi ci kaw ndox mi. xoolal client ko am patente bi mu ngi patente mais ñemewul aw si koñ bi je te jure ñemewuñ fi ñëw parce que buñ fi ñëwee duñu dégg lu nekk cinq ba léegi mënul fexe ay quartier yu bari yu nekkee fii ci Grand Yoff ay ndox yu bon ñoo fa fees dell ba tax na xet gu bon googee it tere naa nelaw askan wax ñuy sàkku ci nguur gi mu utal leen ci saafara.